ma wan sëñ baaba ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Maodo Sy Dabakh sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mi ci daara yi baba maamam Cheikh Seydil Hadji Malick lan moo xew guddi wala tàkkusaan gunu jagleel Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd kooku waa Taha TV Taha TV ak Alhaji Mouhamadul Bachir Badiane ak ñi ma ko séqal ñoom ñëpp àndandoo organisé takusan jaglel ko yonent bi alayhi salatu wassalam kagn la le 15 janvier inshallah taala ci teewaayu oustaz Mouhamed Ndiaye bu télévision Walfadjri dina ànd ak ñu bëgg yonent bi ñëpp ñëw bégal ñu ci Sidina Mouhamed waaye alxaaji Mamour Niang moo koy way incha allahu taala invité yaa ngoog Mouhamadul Moustapha Ndiaye incha allahu taala waaye seen xarit ki ngeen jël def ko seen xool xol alxaaji Sam Mbuub l'infatigable de l'islam moom itam dana ñëw incha allahu taala waaye guddi gi wala tàkkusaan gi bu Mouhamed waxtaanee ba pare ki nga xam ni moo jotaay bi mooy Serigne Mame Abdoul Aziz Sy موسيرين بابا كري عبد العزيز مشيخ الحاج عبد العزيز مسجد الحاج مالك بابا عبد العزيز مسخنا داي مريم مسيد محمد المصطفى سي جميل موسيرين بابا كرسي مسجد الحاج مالك فمي امي كر مسار كان لا ل 15 جانفي لاي دون بوكو كين تاردي ان شاء الله تعالى ماغي و سوبي سيدنا محمد يب والسلام عليكم